jël ko difficilement la koy jël su bopp su normalee sax doo ko jël su ñëwee da koy rejeté da koy da koy rejeté parce que lii du wax du mën a dugg ci bopp bopp bu normal mënu ci dugg moo tax yenn ngëm-ngëm yi ku koy gëm boppam normalul parce que am na loo xam ne ngay fekk nit ki mu koy gëm te lii gëmuwut li muy tekki mooy moom am na problème quelque part su amutoon problème lii du dugg ci boppam mënta dugg ci boppam parce que bopp yi borom bi da ko prévoir pour waxam mën ci dem te dafay am dafay adapté wu yeneen wax yi nag bu ci am contradiction waxu borom bi warta mën a jàll warta warta mën a jàll kon ñu ngi jeexalee woon yaakaar naa ci aaya bii nga xam ne ci la doon tudd ay lu ëpp ci ay turam ak i melokaanam nga xam ne yu bëri ñoom ñoo fa daje kon mu ne woon nu'minu ñu ngi gëm ci page 8 bi anna lahu mulku samawati wal ard dañoo gëm ne kenn moomul asamaan ak suuf yàlla moom moom asamaan moom moom suuf waxuma la asamaan doomu aadama moom amul benn nit boo xam ne am na dëgër fit gu toll ni naan la asamaan am naa fa cent cent mètres carrés wala cent cinquante mètres carrés am na. amul mais suuf moom nit am na lu mu ci am mais nit ku naan la maa moom suuf si yëpp waxul dëgg sa kër yow sa kër gi nga moom boo ne woon borom kër gi tege sa kër wala ki nga taxalool kër ne ko kër gi nga dëkk maa ko moom léegi nga am problème. fi nga dëkk moom yaa ko moom bu fekkee yaa ko jënd yaa ko moom bu dee sa tool yaa ko moom kon suuf si am na loo ci moom mais moom suuf si yëpp moom suuf si yëpp kenn la. muy borom bi subhanahu wa taala boo nekkee président de la république sa territoire suufu dëkk fi mu yem fa nga yem moomoo moomoo lépp te moomeel gi sax lu ma mantaane la soo fi nekkatul président da amatoo ci sañ-sañ da ngay wàcc mais yàlla mooy ki nga xam ne moom am moomeelu asamaan moo am moomeelu suuf lu tax yàlla moom asamaan ak suuf parce que moo ko bind moo ko sàkk mbindaa foonam la asamaan créature yàlla la suuf créature yàlla la moo ko bind def ko fi moo ko fi teg moo ko fiy jële kon yàlla moo ko moom appartenance asamaan ak suuf ci loxo yàlla la nekk moom moo ko moom milkiya bi ba pare milkiya tàmma la c'est-à-dire moomeel la goo xam ni amul fu mu yem amul condition moomeel gu mat sëkk la moom borom bi moo tax mu ne yaxluqu ma yasha yàlla mooy sàkk lu ko soob lu ko soob yàlla sàkk na ko yàlla sàkk na nit sàkk jinne da koo soob sàkk ay animaux daf leen a soob sàkk ay garab da koo soob ay dex ak i géej da koo soob yàlla lu ko neex sàkk te li neex yàlla kenn xamu ko yàlla moom moo xam li ko neex man xawma li neex yàlla yéen xamu leen li neex yàlla wala xam ngeen li neex yàlla kenn xamu ko yàlla dong moom moo xam li ko neex moom te lu ko neex lay sàkk mu ne yahabu li man yashaau inaatha wa yahabu li man yashaau dhukur yàlla ku ko neex mu may la doom bu jigéen ku ko neex mu may la doom bu góor sirru bi nekk ci taqdim jiital jiital fii doom bu jigéen ci doom bu góor ndax yàlla jiitalul zukur góor gi ci li nga xam ne mooy mooy jigéen ji mu jiital jigéen yahabu liman yashaaw inatha ku mu neex mooy la doom bu jigéen parce que arab yi ñoom ci seen jamono am doom bu jigéen kooku gaaf la sikk la doom bu jigéen ci ñoom sikk la woon ñoom bugguñu woon am doom bu jigéen parce que dañuy wax jigéen bëriwul njëriñ benn ñaareel bi comme ñoom dañoo nekkoon xeet boo xam ni jamonoy ceddo xeex moo leen gënal kaay lekk moo leen gënal kaay naan xeex dañ doon xeex ngir benn buumu gëléem buumu gëléem da leen doon boole ñu xeex buum xam ngeen buum buumu gëléem boole leen ñu xeex nen nen wala ginaar boole leen ñu xeex xeex ko pendant des années dañ koy xeex pendant des années ñaari tribu yi ko doon xeex tribu yi dañuy dem seeni sët ñëw di ko xeex ñoom ñu dem seeni sëtaat ñëw di ko xeex yéen yéen a tooñoon suñuy maam ba reyoon ci kenn dañ koy fay loolu la ñuy tudde al axzu bi sar wala ad damu bi dam mooy ku tuur sa deret sa deret loolu foog yow nga fayeeku ko ci moom loolu boo xoolee jikko jooju jikko boobu ci arab yi mooy bu amee ku rey kenn ci say maam doo ko bàyyi saa bu ngeen amee possibilité fayu loolu boo xoolee suñu mbokk pël yi ba léegi loolu moo nekk ci ñoom ba demee tey pël yi ci àll bi ay daara jolof ak nga dem yenn dëkk yi nga xam ne pël yi dañu faa bëri ah daanaka di nga gis ay pël ñëw di xeex di jamante ay jaasi fekk affaire bi seeni maam la woon ah am mbokk pël yi ngeen baal seeni maam la woon ñu koy jéem ñu ñuy régler compte yi actuellement nii boo leen laajee ñu ne ñoo ñii dafa am histoire bu dox suñu diggante ak ñoom maanu leen ci noppi leen fekk na ay ay at ci ginnaaw la woon ba moytul 1800 la woon wala 1700 mais léegi lañ koy fayeeku si parce que ñoom duñ bàyyi koo xas ba tuur ci ñoom deret il faut il faut ñu fayeeku loolu jëfu ceddo la nag jëfu ceddo la loolu mooy axdu saar wala ad damu bi dam saa boo leen tuuralee deret il faut ñoom ñu tuur deret yàgg yàgg tuur deret loolu ji koy ceddo la arab bi dañ ko daan def moo tax ñoom xeex bu bëri boobu bugguñu woon di am doom bu jigéen parce que boo amee doom bu jigéen bu xare amee suñu jàppee sa doom bu jigéen dañ koy yóbbu ñoom suñ ko yóbboo day nekk jaam ci ñoom léegi dañ naan la yow am nga ju léegi am nga koo xam ne ku bokk ci yow la def nañ ko jaam mu jur ay doom doom yi nekk jaam ñi askanale xeet bi xeet bi ñu leen di askanale leen ay jaam ngeen su ko defee bañ bañ gàcce googu ak torox ak torox toroxtaange googu da leen doon jaral bëgguñu woon am doom bu jigéen yàlla mi ngi wax ci suratu nahl wa ida bushira ahaduhum bi untha dalla wajhu muswaddan wa huwa kadim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu ala turab ala saa ma yahkumuun nee na suñ leen xibaaree kenn ci ñoom ci arab yi fekk ko fi mu toog ci grand place bi ne ko sa soxna am na doom bu jigéen dalla wajhu muswaddan wa huwa kadim kanam gi day ñuul crispé mu mer yatawaara min al qawm buy jóg day yolleeku day yolleeku ci nit ñi bu àggee këram ñaari solution la am a yumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ndax bu àggee day jël xale bi tëj ko ci benn néeg du génn xale bi di dund toroxtaange ñu koy sonal ci dundam ah wala am yadussuhu fi turab wala da koy génnee ndànk ni mu nekkee liir noonu di door a judd dem ba ci àll bi suul ko ci biir suuf te kenn du yëg loolu mooy wa isal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat dinañ laaj xale bu jigéen boobu ngeen doon suul ci ban bàkkaar def ba ngeen koy suul loolu da ngeen di dégg léeg-léeg yenn waaraatakat yeeg addiskat yeeg gàmmukat yi ci rajo yeeg télé yi ñu naan la Omar ibnul Xataab am na jamono bi muy nekk ceddo bi mu ñëwee ba tuub ci lislaam dafa jékki-jékki jooy ñu ne ko Omar looy jooy mu ne dafa am bàkkaar bu ma defoon bi ma nekkee ci ceddo ji di ko naxarlu mu moo may dikkal moo may dikkal à chaque fois moo tax sama xol di jeex may jooy bàkkaar bi lan la dama amoon doom bu jigéen téye ko mu amoon juróom-ñaari at jëm juróom-ñetti at yóbbu ko ba ci àll bi gas pax bu xóot di ko suul bi ma koy gas di ko suul suuf si ma ko doon gasee pax mi suuf si takk sama sikki mu ma koy fompal naan ma papa looy def xaw ma xaw ma xaw ma lu ma koy wax ba pare ma daal di koy suul loolu wax ju yàqu la kooku wérul fenn ci téere yi ba pare ñi koy propager mooy les chiites version boobu soo ko doon soo ko doon wër ci téere ahlu sunna yépp doo ko ci fekk nekku ci amul ci benn ci bu mu nekk ci téere chiite yi la nekk te chiite yi kiñ gën a bañ ci kaw suuf moo Omar ibnul Xataab ak abu ak Abu Bakrin as-Siddiq ñoom ñaar leen gën a bañ Omar moo daane moo daane l'empire perse moo tax loolu perse yi mënuñu koo baal Omar mënuñu ko ko baal xeex bu métti Omar réduire leen ci façon réduction bu doy war daaneel ci empire boo xam ni dañ koo bâtiroon pendant des siècles mu nekkoon ci empire yi gënoon a dëgër ci kaw suuf mooy empire romain yi perse yi ak byzantin yi Omar ñëw daaneel romain yi daaneel byzantin yi daaneel perse yi Omar jamonoom bi mu fi nekk lépp la daaneel ba mu des ba mu des empire islamique kese la fi bàyyi woon bépp empire bu taxawoon ci kanamam Omar daf la massacré léegi loolu ñoom mënuñu ko baal Omar ibnul Xattaab siidi moo tax Omar lañ gën a bañ ci saxaaba yi ak Abu Bakar moo tax ñoom histoire boobu ñoo ko créé pour ternir ternir image Omar ibnul Xattaab malheureusement ñi nga xam ni seen jàng soriwul wala defuñu étude supérieure wala amuñu niveau di gëstu lu wér ak lu wérul ci wàllu histoire yi dañuy tasaare rek mais histoire boobu wérul lu tax wérul jamonoy ceddo Omar bi muy nekk ceddo booba amul li nga xam ne ci moment boobu doom bu jigéen boo xam ne xam nañ ne suul na ko Omar xam nañ doomam yu jigéen yépp te doomam yu jigéen yépp dund nañ ki mag ci doomam yu jigéen yi mooy Hafsa Hafsa Omar suulu ko Hafsa màgg na ba yonent bi alayhi salaatu salaam takk ko wala déet ah kon bëgg laa saxalal ne la Omar ibn Xataab dafa suul doomam bu jigéen wéru ak koo dégg mu koy wax soo ko laajoon authenticité authenticité récit boobu wala histoire boobu yaakaar naa dina am jafe-jafe pour authentifier ko donc nekk lu wér lu siiw la lu ñuy waxtaane la daanaka li nga koy dégg bëri na mais nekk lu wér kon ñoom dañ doon suul jigéen dañ ko daan suul ñoom bi ñu nekk ci ceddo dañ ko daan suul alxuraan nettali na ko loolu nag moo tax suñ borom wan leen ne doom ju jigéen yàlla moo koy maye jigéen baax na góor baax na moo tax yàlla jiital doom bu jigéen yahabu liman yashaaw inaatha yàlla ku ko neex mu may la doom bu jigéen gis nga lu mat a bàyyi xel la mbirum doom yàlla koy maye mën ngaa jaar fi nga jaar sabablu nit mën na dugg ci mariage keneen dugg ci mariage kii am doom deux ans de mariage après wala trois de mariage trois ans de mariage wala quatre ans de mariage après mu am doom kii nekk ci dix ans du am doom léegi société boo xam ne nit ñi dañoo ñàkk xam-xam seen diine dañ koo réere dañuy def ay dégâts yu bëri réew mu demee ni Sénégal wala généralement la société africaine jigéen bu duggee ci ménage amul doom amul doom accusation yëpp ci moom lay porté du dem ci du dem ci jëkkër ji mais dañ naan jigéen ji jigéen ji la est-ce que du ko góor ki mais jigéen ji la ñuy njëkk a moom la ñuy accusé affaire bi def ko benn stress mental benn fatigue mentale def ko ay trouble du mën a concentré wu ci biir mariage am mën a say normal lan lay def mooy nan lay def ba am doom mais nooy def ba am doom doom daa nekk sa loxo yàlla mooy maye doom mayeegu la ko muñal léegi ñaata nit ñoo fi sëy ba màggat amuñu doom ñaata ñoo fi sëy ba màggal a màggal door a am doom yonent yàlla Ibrahim ci ban âge la am doom te sëy na lu yàgg amul doom mais mu muñ ko ànd ak gëm yàlla subhanahu wa taala amaana yàkkamti gi ngay yàkkamti am doom doom ji su ñëwoon moment bi baaxul ci yow su ñëwoon baaxul ci moom amaana doom ji su ñëwoon moment bi juddu du baax ci moom dina indaale ay feebar yoo xam ni ordonnance ak jaaban ci dem hôpital ak yéeg wàcc mën na laa sonal beneen bi mën na am su ñëwoon indaale ay feebar yoo xam ne du baax ci moom amaana yow yaay ji su ñëwoon attana goo ko attana goo grossesse bi sa wàllu santé mayu la ko gënul ci yow gëmal yàlla yàlla tànn moment bi gën jox la ko yàlla tànn moment bi gën jox la ko parce que nag doom du caaxaan nit buy génnee nit yombul loolu lu lu dafa sérieux te dafa métti nit fi muy jaar ba ñëw boo ko xoolee dafa nekk loo xam ne lu métti la moo tax ñu bëgg ci lislaam xale bi su ñëwee juddu yaay ji nekk ci jàmm xale bi nekk ci jàmm ñu tuur deret sante ko yàlla subhanahu wa taala parce que nit fi muy jaar ba ñëw c'est pas facile waaye mu ñëw ñuy kandang kandang di foo di tëbaka dal di caaxaan te dañu waroon a sant borom bi subhanahu wa taala parce que am na ku fa jaar xale bi ñëwut xale bi ña ñàkk bakkanam wala avant xale bi ñëw yaa ji ñàkk bakkanam yaa ji li muy daj pour xale bi judd kenn xamul nu mu toll loolu kon bu ñëwee sant yàlla moo ci war yàlla ku ko neex mu may la doom ju góor gis nga kon mbirum doom bu góor ak doom bu jigéen yàlla la moo koy maye ci loxoom la nekk yàlla moo leen di def ngeen ngeen ngeen sëy ak góor moo leen def ngeen sëy ak jigéen kenn ku nekk du yaay tànn yaay tànn sëy di nga tànn koo war a sëyal mais kañ ngay sëy ak nooy sëyee yàlla la même ki ngay sëyal ñu bëri mën nañ ñëw mais suñu borom subhanahu wa taala mooy programme kañ kan nga war a sëyal góor mën ngaa jóg labati ñeenti jigéen juróomi jigéen mais ki nga ciy takk xamagoo kan la jigéen mën naa ñëw ku ñëw wax ku ñëw wax ku ñëw wax kii sérieux na kii amaana day caaxaan kii day foo kii day seetlu mais ki nga xam ni moom la yàlla di dogal ne kii lay doon xamagoo kan la mëna koo ko xam sa xol mën naa gën a jëm ci keneen mais suñu borom mën naa dogal du kooku wala ngeen dogal sax ngeen dem entame ay discussion waxtaan ba sori yàlla indi benn obstacle mu baare affaire yi parce que warul nekk kooku mbirum yàlla la kon yàlla ku ko neex moo may def nga séeg góor gu ko neex wala mu def nga séeg jigéen ji ko neex mu doon sa borom kër wala mu doon sa soxla waaye ku ko neex yàlla def la nga jaasir wa yaj'alu man yashaa'u aqima ku ko neex mu def la nga jaasir jaasir mooy doo am doom am na ñoo xam ni góor yoo xam ni borom bi dafa bind ci ñoom ne duñu am doom nañ faju nañ def opération nañ naan xob nañ naan reen nañ naan lu nekk duñu am doom yàlla moo ko dogal jigéen ñoo xam ne suñu borom moo dogal ci ñoom ne wa yaj'alu man yashaa'u aqima yàlla mooy def ci ñoom ñu jaasir mënuñoo am doom lu tax ngir ay xikma yàlla li ma waxoon amaana ñoom am doom gënul ci ñoom amaana ñoom am doom baaxul ci ñoom ak ainsi de suite ak yeneen yi yeneen suñu borom téye doom ju mën a ñëw pour ñoom ñu continuer di fi nekk di am jàmm ak salaam di dund parce que peut-être mooy li gën ci ñoom moo tax mu ne wa yaj'alu man yashaa'u aqima ku ko neex mu def la doo am doom lu mat a bàyyi xel yàlla mu ne innahu alimun qadir léegi wàllu def la nga am doom kooku dafa laaj xam-xam qadir dafa laaj kattan puissance yàlla ku am xam-xam la ci li muy def qadir ku mën li muy def la da ciy am kattan nekkul koo xam ne ku ci impuissant la wala ku ci puissant la wa nu'min dañuy gëm bi annahu ni moom yàlla laysa ka mislihi shay dara melut ni yàlla dara nuróowut ak yàlla dara yàlla amul lu muy nuróol fii koo fi jël am na koo nuróol wala mën ngaa gis kenn koo xam ne nuróowut ak kenn damaa gis benn waaye ne ko gis naa ko nuróog yow wala i am na fu ma demoon gis naa fa ko nuróog yow daje naa ko nuróog yow romb naa image bu nuróog yow fii kenn ku nekk am na koo nuróol nuróo bi na nekk 1 pour cent wala 2 pour cent wala 100 pour cent mais am na koo nuróol kenn ku nekk am na koo nuróol nuróo bi ñaata pourcentage la xamuñu mën naa nekk 100 pour cent mën naa nekk 1 pour cent mais am na koo nuróol am na fu ngeen nuróo des fois nit ki lan ngeen di nuróo yéen a nuróo façon waxin des fois lan ngeen nuróo façon reetaan wala muuñ des fois lan ngeen nuróo doxin doxin ngeen nuróo des fois lan ngeen nuróo tàngoor dafa tàng nga tàng yéen a nuróo nu ngeen di tàngee des fois lan ngeen nuróo da ngeen a nuróo xuloo ni muy xuloo ngay xuloowee wala déet ah kon nit ku nekk am na fooy nuróog nit des fois ngeen nuróo ci wàllu image ci wàllu jëm da ngeen ñu nuróo ci wàllu kanam nuróo ko mais yàlla koy jël ne yàlla kii daa nuróog fii yàlla boo koy wax boo moytuwul léegi nga dem yàlla kenn nuróowut ak moom ci dara amul fenn benn domaine booy jël am ku ci nuróog yàlla amul parce que laysa ka mislihi shay laysa naafiya la baatu shay nakira la nakira fi siyaaqi nafi tufidu al umum laysa ka mislihi shay fi ay shay dara nuroowut ak yàlla ci dara amul looy jël lu nuroog yàlla amul malaaka yi amul benn malaaka bu ci nuroog yàlla ça n'existe pas nit ñi amul benn nit bu nuroog yàlla jinne yi amu ci benn jinne bu nuroog yàlla animaux yi amu ci benn bu nuroog yàlla yeneen créature yi amu ci benn créature bu nuroog yàlla laysa ka mislihi shay loo xool ci sa bët ba xool ko jàkkaarloog moom xool ko naan dafa nuroog yàlla nuroowut ak moom soo gëmmoon say bët toog fi di imaginer lu ñàng naan boo demee yàlla noonu la mel melul noonu soo fi toogoon gëmm say bët di imaginer lu rafet a rafet naan boo demee yàlla nii la rafete melul noonu xam nga lu tax mooy pour nga nuróole dara ak dara pour nga comparer dara ak dara da ngay am point de départ yow da nga am point de départ ci yàlla yàlla am nga ci moom idée est-ce que am nga idée ci yàlla léegi soo bëggee nuróole Samba ak Demba yow da ngaa xam nu Samba mel wala déet Samba doo am nga ci moom benn image benn idée léegi nga gis Demba ne ya Demba ak niroog Samba parce que da ngaa am idée ci Samba xam nga nu Samba mel léegi mën nga leen nuróole wala mënoo ko mën ngaa comparer léegi yow da ngaa am idée ci yàlla est-ce que am nga idée ci yàlla ba naan yàlla kii daal niroog yàlla fii wala am na fu mu tolloog yàlla wala am na fu mu xaw a niroog yàlla soo ko waxee ak ñeme yàlla parce que yow amoo benn idée ci yàlla waxuma la yàlla mais malaaka amoo ci moom idée malaaka jibril ku am ci moom idée doon di Sénégal am na ñuy waxtaan ak jibril ñoo xam ne dañuy jibril da leen di dikkal ñuy ñuy am ay discussion di waxtaan di def échange ci problème mu jaam yeeg problème mu nit ñi waa safaraak waa àjjana loolu am na Sénégal moom loolu am na mu nekk loo xam ne lu reetaanlu la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam mooy yonent bi yàlla yónni n'est-ce pas moom bi mu njëkkee gis Jibril nu mu def ci xaaru Hira ci Màkka dafa tranquille bi mu gisee Jibril yonent bi dafa jàpp njaamuram tranquille bi mu gisee Jibril nu mu def situation bu doy waar la nekk parce que Jibril du caaxal ñëw këram naan Xadija zammiluuni dassiruuni ah tiit tiit naan Khadija sàng leen ma Khadija xam ne yonent yàlla Muhammad bi ki génnoon Muhammad bi génnoon bi muy génn ak ni mu dikkaatee am na changement léegi ñun yonent yàlla gis Jibril pour la première fois nekk ci beneen niveau ñun fii gars yi di gis Jibril di naan ataaya di naan njar di di di naan la Jibril daf maa dikkal biig ci guddi dañuy fooye xelu nit ñi wallahi ku fi gisoon Jibril boo yeewoo di nga di nga mel neneen lu doon yeewu naan jibril dafa maa dikkaloon biig ñuy waxtaan wala damaa demoon ci kaw seeti jibril kon laysa ka mislihi shay'un yàlla dara melul ni moom dara loolu foog ñu bàyyi ci xel dara melul ni yàlla loolu mooy pas-pasu ahlu sunna yàlla duñ ko nuróole ak dara du ci benn domaine wa sami yàlla day dégg ah yàlla day dégg wala du dégg day dégg léegi am na ci nit ñi ñoo xam ne du ma wax sax ci nit ñi waaye am na ci kuréel yi ci xeet yi nga xam ne dañuy askanoo ci lislaam ah mooy groupe yi nga xam ne dañoo boole seen bopp ci lislaam te bëri bokk na ci alxawaarij bokk na ci al ashaira bokk na ci al murjia bokk na ci al mu'tazila bokk na ci al ibadiya ñu ay ay ay kuréel yu bëri lañ al kuramiya al salamiya kuréel yu bëree bëri lañ al matrudiya ah al kullabiya kuréel yu bëri boo xam ne ku ci nekk daa am fu ñuy askanaloo te ka ñuy askanaloo nit la bu jëlee achaira abul hasan al ashari mu'tazila wasil ibnu ata jahmiya jahmu ibnu dirham foo jël rek am na kuñ koy askanalee ci nit ñi parce que nit kooku moo njëkk a indi idée boobu ak idéologie boobu dugal ko ci lislaam am ci ñoom ñoo xam ne dañ ni boo nee asami mooy yàlla aji dégg la yàlla day dégg léegi loolu sifa la ci yàlla melokaanu yàlla la mooy yàlla bokk na ci ay melokaanam day dégg léegi sifa boobu sifatu kamal la indi ahli sunna mooy melokaan bu mat sëkk la ci yàlla parce que yàlla bu déggul li muy tekki mooy yàlla manqué na ahlu sunna ñoom ñu ne melokaan boobu sifatu kamal la melokaan la buy wane ne yàlla dafa mat ñoom ñu ne déedéet boo ne yàlla day dégg day mel ni kon da ngay nuróole yàlla ak nit parce que nit day dégg est-ce que yéen ngi dégg wax ji léegi mbaam day dégg su ma nee mbaam day dégg damaa bëgg a wax ne mbaam daa nuroog nit est-ce que su ma nee yoo day dégg yoo day dégg wala du dégg yoo yoo day dégg léegi su ma nee yoo day dégg damaa bëgg a wax ne yoo ak nit ñoo nuroo ah kon saxal isbaatu sifa du tashbih maanaam saxal melokaan bi tekkiwul ne da ngay nuróole beneen bi saxal melokaan bi isbaatu sifa laa taani at tajsiim saxal melokaan bi tekkiwul ne da nga koy da nga koy jëmmal su ko ne yàlla day dégg tekkiwul ne da nga ne yàlla day dégg nopp lay déggee nii lay déggee déedéet yàlla waxuñu lu muy déggee dana day dégg dañ naan ñun yàlla day dégg naka lay déggee moo ko xam kon ahlu sunna noonu la ñuy sa saxalee sifaatu yàlla yi parce que yàlla am na melokaan yu nekk ci moom melokaan yooyu dafa dëppoog melokaan yi nekk ci ci nit ci wàllu tur ci wàllu ism loolu la ñuy wax ne al musharakatu fil ism la taani al musharaka fil xaqiqa bokku dëppoo ci tur tekkiwul dëppoo ci ci ci image bi bokkul tekkiwul dëppoo ci wàllu image su ma nee bopp mbaam mbaam am na bopp su nit am na bopp mais boo nee bopp mbaam forme bopp mbaam xam nañ ko boo nee yow yow li muy tuuti tuuti am na bopp tekkiwul ne su ma nee su ma saxalee bopp yoo bi dama koy jëmmal ne nit boppam noonu la war a mel forcément kon soo ne yàlla day dégg nit day dégg tekkiwul ne forcément ni nit di déggee noonu la yàlla ay déggee ku ko wax wax ju yàqu la ki bëgg a ki bëgg a nuróole moom moo ci am dégg-dégg nuróole mais saxal gi tekkiwul ne da ngay nuróole kon laysa ka mislihi shay'un yàlla dara melul ni moom waaye huwa sami day dégg léegi yow soo nañu yow yow ashari bi yow boo ñëwoon nga ne ñu yàlla du dégg léegi yàlla bu déggul nu muy jugé jaam bi yowmal xiyam nan lay xamee ki saaga ki jëw ah nan lay xamee ne diw daa saaga woon diw diw daa jëwoon nit léegi bu fekkee yàlla dégg jaami taxaw bu ne ko yàlla ah man saagu ma ko woon de est-ce que yaa ko dégg saagu ma ko woon de est-ce que yaa ko dégg léegi problème du am beneen bi beneen bi fii ngeen baal ma ci waxin bi ah ki naan yàlla du dégg ki naan yàlla du dégg dañ koy woo ñëw ñu ne ko yow sa baay du dégg yow sa papa du dégg koo fi wax sa papa du dégg wala sa papa sa papa dafa muuma du wax ngeen yaakaar ne nu muy demee ba moytuwul bu la ëppee doole poñe la am nu mu def ak yow léegi yow loolu nangu woo ko ci sa waajur bi la jur suñ nee du dégg manque manquement la ci moom suñ nee du wax muuma la manquement la ci moom léegi yow li bëgg nekk manquement ci sa baay nga bëgg mu nekk manquement ci yàlla li nga nangulul sa baay nga bëgg koo nangul yàlla yow nangu woo ne sa papa muuma la nangu woo ne sa papa dafa tëx du dégg léegi nga bëgg yàlla moom du dégg léegi yàlla bu déggul bu déggul yàlla bu déggul léegi naka lay naka lay déggee li jaam yi def jibril bu koy indil di ko rendre compte jibril buy ñëw di rendre compte yàlla li nga xam ni moom la jëlee ci yonent yi la nan la yàlla di déggee bu fekkee ne yàlla du wax alxuraan fu mu jóge nan la yàlla yónnee muhammad muhammad nu ko yàlla yónnee wala da koo sol affaire yi loolu da ko doon wax wax yi bi da ko doon wax jox ko jibril jibril jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dañuy saxal ne yàlla sami aji dégg la nan lay déggee duñ ci dugg basiir day gis yàlla naka lay gisee soo fi nekkee di ko expliquer léegi nga alko parce que yàlla détaillé wul naka lay gisee boo koy wax da ngay wax loo xam ne amoo ci xam-xam ak ñeme yàlla ngay def yàlla nee na day gis neel yàlla day gis naka lay gisee bu fi nekk noonu naan yàlla c'est que nii lay gisee nël boo koy wax yaa ngi wax loo xam ne amoo ci benn connaissance li ngay wax wóoru la parce que yàlla waxu la ci alxuraan naka lay gisee kon day gis jeex na te gisam nag bu ñu nee yàlla day dégg day gis attention bu ma nee nit ki day dégg est-ce que yow actuellement nii yaa ngi dégg li xew ICAT université yaa ngi koy dégg buntu Pikine li fi xew nii yaa ngi koy dégg ah est-ce que yaa ngi xew dégg li am fi croisement Cambérène déggoo ko sa dégg-dégg yow en tant que nit sa dégg-dégg dafa limité daa am looy dégg am loo dul dégg mais yàlla lépp lay dégg su ma nee yàlla day gis nit day gis gisu nit ki dafa limité wu. fi nga nekk nii li nekk ci quatre murs yi entre quatre murs yi moom nga moom nga mën a gis ak peut-être boo sànnee sa bët ci fenêtre yi fii am na fi koy gis li nekk croisement Cambérène ah kenn mënu ko boo yoroon longueur sax ba moo ciwul difficilement ngay gis di nga agrandir xëcc jegeel lu nekk di nga ko dugg pour mën a gis mais yàlla moom lépp lay gis beneen bi mooy day gis li feeñ gis li nëbbu yàlla lépp lay gis lépp dara nëbbuwul ci moom yonent bi alayhi salaam ñu ngi ko waxee xorondoom bu ñuul xorondoom menental menental bu ñuul nekk ci benn pierre noire xeer bu ñuul ci moment boo xam ne jamono yi nawet la mu lëndëm crise naaj amul ba ñuul kuk menental bu yëkkati tànkam yàlla gis na ko moom mi ngi koy gis te bu yëkkati tànkam gis na ko nekk yàlla nekk yàlla affaire la moo tax jéem a nekk yàlla du sotti parce que yow sa biir nekk sa ron lal li fa nekk xamoo ko nga naan yàlla sa ron lal li fa nekk bu ñu la waxoon li nekk sa ron lal maîtriser woo ko maîtriser woo ko yàlla daa war a gis lépp yow sa biir kër rek am na loo fa gisul te yàlla lépp la war a gis léegi nooy gisee affaire ji af nooy gisee affaire nit ñi ba ma ba mën a xam ku def ak ku deful ku wax ak ku waxut kon borom bi subhanahu wa taala lépp lay gis gisam amul limite waaye lépp lay dégg déggam amul limite moom yàlla lahu maqalidu samawati wal ard nekkal na ko moom yàlla li nga xam ne mooy dëgëral asamaan ak suuf te mooy tàllal wërsëg yabsudu risqa mooy tàllal wërsëg li man yasha ku ko soob te wërsëg gën naa yaatu alal ñu bëri alal rek lañ ko jàppee wér-gi-yaram wërsëg la xam-xam wërsëg la njaboot gu baax wërsëg la continuer di dund nekk ci siraatal mustaqim wërsëg la wa yaqdiru yàlla mooy tàllal ku ko neex wërsëg wa yaqdir moo koy nattale wërsëg gi moo koy limité moo koy moo koy mesurer kii mu may ko lu bëri kii mu may ko lu yem kii mu may ko lu tuuti ila axirihi innahu bi kulli cheyin alim yàlla mooy ki nga xam ne lépp la am xam-xamam wa numinu bi annahu dañuy gëm ne moom yàlla wa ma min dabbatin fi l ard amul lenn luy dox ci kaw suuf ad dabba kullu maa yadubb alal ard mooy lépp luy luy tukki tukki di dukki dukki di dox di kër kër yi ci kaw suuf lépp lu ne ci kaw suuf di dox dabba la nit mi ngi ci biir mboolem animaux yi nga xam ak yi nga xamul ñu ngi ci biir lépp lu ne ci kaw suuf di ci dox fil ard illa ala allahi rizquha lu dul yàlla moo warloo jox ko wërsëgam wallahi mbokk yi lu yéeme la xool leen désert désert des fois doo seetaan documentaire nga gis ab désert nga gis ay animaux yu nekk ci désert bi est-ce que yow yaa ngi xalaat ci sa xel waa animaux yi fan la ñuy lekkee fan la ñuy naanee est-ce que yaa ngi koy xalaat yow désert boo xam ne suuf kese la nga gis fa ay animaux jékki-jékki gis benn renard bu génn ci biir dugaat nga jékki-jékki gis benn jaan bu génnee boppam ñu filmer ko mu dugaat ci biir désert bi yow yaa ngi posé wu question kii lu koy jox mu lekk lu koy jox mu naan yaa ngi koy posé wu question lekkam ak naanam fan lay jóge lan moo koy jox mu lekk lan moo koy jox mu naan des fois nga ngay dem voyage ci digg àll bi nga romb benn muus muus muy traversé tëri muus bi lan lay lekk foofu ku yor wërsëgam ku koy jox mu lekk ku koy jox mu naan des fois nga gis moment boo xam ne du moment wu nawet noor la digg noor nga xam ne déeg yi déeg yi ci àll bi yëpp wow nañ comme ngay dem voyage di romb ay picc ak i pitax ñuy naaw fu ñuy naane fan la ñuy naane picc yooyu nekk ci àll bi fan la ñuy naane am na ku yore seen wërsëg te dee leen wommat yóbbu leen ba fu ñu war a naanee ñu naan delluwaat moo tax sama mbokku pël yi sàmmkat yi ak arab yi nga xam ne ci àll bi la ñuy nekk. ñoom su ñuy voyagé picc yi la ñuy xool zone bu am picc dañ naan dina am ndox ñoom picc yi la ñuy topp bu ñëwee benn zone dox ci àll bu yàgg gis ñu picc dañ naan fii baaxul fii amul ndox bu fi nekk di nga am problème dañuy déplacé wu suñ demee zone commencé gis ay picc seen xel day dal ñu commencé di suivre picc yi picc yi bu ñuy naaw ñu leen topp di leen bàyyi xel picc yi dañ leen di mëne ci place boo xam ne am na ndox loolu ci kéemtaanu borom bi la wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha amul benn créature benn rab buy dund ci kaw suuf lu dul ne yàlla moo war lool boppam ne moo koy jox wërsëgam lu muy lekk lu muy naan moo koy dundal moo koy dundal léeg-léeg da ngay gis yenn yenn façon créature nga naan waa mais façon gunóor bi mais façon sax bi façon weñ bi nu ko yàlla di bindee fekk yàlla da koo bind mu nekk wërsëg pour yeneen animaux yi ñu koy lekk yow mu lay jaaxal lii lan la fiy wut des fois nga dégg kenn ku naan waa mais ab dund suñ dund gi su amutoon yoo ak ay neex yooyu lan lañ fiy wut toog di màtt nit ñi rek yoo lan lay wut ci ci monde bi su amutoon yoo suñ dund gi su amutoon yoo ak ay neex xanaa xamoo ni su amutoon yoo ak ay garaaw bu amutoon yoo day garaaw parce que am na fa ay microbe yoo xam ni dañuy sonal doomu aadama yi naroo leen jox ay feebar yooyu ñoo leen di éliminer grâce ak yooyu. microbe yooyu mënuñu développé weñ yi ngay gis weñ waaye weñ weñ lan moo fi njëriñam boo defaree sa soow mu daanu ci wala nga teg sa kaasu meew wala café wala ataaya mu daanu si yàqal la ko vraiment yooyu ak weñ yi mënoon nañu fi ñàkk weñ yi suñu fi amutoon am na fi ay microbe yoo xam ne weñ yi ñoo leen tere développé ci biir ci biir environnement bi sinon microbe yooyu doon nañ développé ba moytuwul ba ëpp la yow yow ba ba moytuwul ñu lekk la mais weñ yi ñoo leen téye grâce ak weñ yi ñoom mënuñu développé weñ yi fi nekk ñoo leen di éliminer suñuy judd weñ yi weñ yi weñ yi éliminer wërsëgu weñ yi lañ bu microbe yooyu juddoo rek weñ yi lekk nañ leen suñu boroom ay mbiram dafa yéeme waaw mbiram dafa yéeme lool yàlla du def dara ci hasard lépp lu mu def da koo teg ci xam-xam ak ci xikma boo xam ne bu wér la loolu li ma ta bàyyi xel loolu moo tax mu ni wa yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha yàlla xam na fan lay fan lay sax fan lay toog fan lay nekk xam na dëkkuwaayam wa mustawdaaha yàlla xam na aussi fan lay déplacé wu di dama ko dikk kullun loolu lépp fii kitaab bi mu biir mi ngi ci téere boo xam ne bu biir la fii animaux bu fi yàlla sàkk wala créateur bu fi yàlla sàkk yàlla xam na fan nga dëkk noo fa dëkkee looy lekk noo koy lekkee kañ nga fay génn déplacé wu ñëwaat say va et vient lépp xam na ko loolu am na kenn ku ko xam ku dul yàlla ah xam-xam boobu kenn àttanu ko ku dul yàlla kenn àttanu ko yàlla rek moo ko àttan suñu borom dong moo ko àttan wa nu'minu bi annahu gëm nañ ne moom yàlla wa indahu mafatihul gayb caabi kumpa yi caabi kumpa yi kenn xamu ko laa yaalamuha kenn xamu ko illaa huwa ko dul moom moom yàlla wa yaalamu ma fil barri wal bahr yàlla xam na li ci jéeri ji wal bahri xam na li ci géej yi wa ma tasqutu min waraqa illaa yaalamuha ak yéeme amul benn xobu garab bu jóge ci garab daanu dul yàlla xam na ko yow mën ngaa toog ci taatu garab gi xobu garab yi daanu doo ko yëg wala déet yow mën ngaa toog ci taatu garab yi noppalu xobu garab yi daanu doo ko yëg te yaa ngi ci taatu garab gi xobu garab bu daanoo day def biir bi xobu garab bu daanoo dafay def biir bi est-ce que du def benn biir bi moo tax yow pour nga yëg ko c'est un peu difficile mën nga koo bañ a yëg xanaa nga koy xool mais xoolal yàlla moom waxuma nag xobu garab boobu mais xoolu xobu garab yi daanandoo yëpp ci même temps bi yëpp xam na leen loolu mbokk yi lu yéeme la boo koy xalaat da ngay xam ne suñu borom du caaxaan yàlla du caaxaan moo tax mu ni wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabbatin fi zulumaati l ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin amul benn graine benn doom benn pepp boo xam ni nekk na ci lëndëm ci biir suuf si nekk fa te yàlla xamul ne fii pepp graine mi ngi fii ci biir suuf si ak lu mu lëndëm lëndëm wala ratbin moo xam graine bu tooy la wala yaabis wala graine bu wow la yàlla xam na ko illa fi kitaabin mubin lu dul mi ngi ci téere boo xam ni bu biir bu leer naññi la wa numinu dañuy gëm bi ann allaha naka yàlla indahu ilmu saa yàlla moo xam bés pénc xam-xamu bés pénc bés pénc kañ la naka lay amee ci ban semaine la ci ban mois la ci ban année la yàllaa ko xam yàlla moo xam bésu alaxira kañ la le dernier jour de ce bas monde kañ la yàlla rek moo ko xam moo tax jamais au plus grand jamais ñuy accepté nit di génn naan dafay décréter dafay décréter li nga xam ne mooy fin du monde su ngeen fàttali ko en 2012 2012 am na fi benn prêtre bu génn génn fële ci ay booru ay Mexique Uruguay nga xam ni maître la fa boo xam ni ñu bëree ko gëm topp ko yaakaar ko mu ne woon 31 décembre 2012 ci la fin du monde di am aduna ci lay tukki yéen a ngi fàttali ko loolu léegi anam wax na dëgg est-ce que wax na dëgg léegi monde bi ñu nekk dafa nekk monde bu yéeme nit day génn wax yu tooy xep ñépp xam ne waxul dëgg ñu continuer ay dof continuer di ko gëm kooku est-ce que war naa toppati kenn benn nit war na koo toppati gëm ko mais ba léegi mi ngi jiite église am am am na ay fidèles yoo xam ni ba léegi day wax ñuy dof yaakaar ko dafa am dafa dëgg da woon fee di monde amul xanaa bu nga jaaree foofu bàyyi ko xam ne kii narkat la di wax ko du dëgg bu fekkoon ne bés pénc àllaaxira yowmal qiyaam am na ku koy décréter yàlla lay doon est ce que yàlla décréter na ko ci alxuraan wax na ban semaine la ban mois la ak ban année wax na ko ci alxuraan nekku ci su fekkoon ci doomu aadama yi am na ku koy décréter wax kañ la yonent bi la mais est ce que yonent bi décréter na ko wax na kañ la waxu ko lan la joxe yonent dafa joxe rek ay ay ay tegtal ay signe ay signe yoo xam ne signe la ci fin du monde bi signe yi bu ngeen ko gisee fin du monde taxaw la signes yooyu am na ay signes yoo xam ne yu ndaw la yu ndaw yooyu am na yoo xam ne jàll na ba jeex lu demee ni moom yónni gi ñu ko yónni bu'istu ana wa saa ka haatayni yàlla dafa maa yónni maag alaaxira maag bés penc ñu jegentee nii faatu gi mu faatu génn gi mu génn àdduna ci la bokk xar bi yàlla xaroon weer wi ba yàlla wàccee ci saar muy suratul xamar ci jamono yonente bi alayhi salaatu salaam loolu ci ci mandarga yi ndaw yi la jàll na bokk na ci mandarga yooyu ba tey mooy alal gu bëri am na ñu ngi koy gis suñu jamono bu ñu demee ba aduna alal ji bëri alal bëri na fii ñuy toll nii nga xam ne budget yenn dëkk yi nekkatul ay milliards mais ay tril ay trillions la loolu li muy tekki mooy alal ji bëri na banques yi tëdd ci ay milliards homme d'affaires yi tëdd ci ay milliards sociétés yi entreprise seen chiffre d'affaires ay milliards la li muy tekki mooy alal bëri na alal bëri na trop ci niveau bi ñu nekk déegu bëri te gaaw kasratul hërj ñu ngi koy gis actuellement chaque jour nga dégg am na avion bu daanu am na benn train TGV bu def benn accident ay milliers de personnes ñoo dee benn bateau bu coulé ay milliers de personnes ñoo dee am na benn tsunami bu am ca Japon wala bu am fële ca Philippines wala Thaïlande ay milliers de personnes ñoo dee am na tremblement de terre bu am ay milliers de personnes ñoo dee am na benn volcan bu yëngu sandi ay large ay milliers de personnes ñoo ci dee chaque jour ñu dégg mais dee gi dafa dem ba léegi ci ñun dafa banal bu njëkk dee soo ko déggoon da ngay tiit mais léegi da ngay seetaan journal tiim say ginaar ñu ne am na benn avion bu daanu 400 nangam personne ñoo ci faatu nga ne ay ndeysaan yàlla la yàlla yërëm continuer di seeñu sa yax soo paree yootu sa kaasu ataay naan wala sa café wala sa wala sa wala sa njaru soow du la yëngal alors que bu njëkk nit dee na yow boo ko boo ko déggee sa journée bi day sa journée day yàqu mais léegi ay milliers de personnes lañ lay tàgge nga continuer di consommer li ngay consommer du la yëngal li muy tekki mooy dee gi bëri gi yonent bi alayhi salaam waxoon da ngay tàggu nit léegi léegi ngeen waxtaan ci guddi gi ba tàggoo nga yeewu ñu tàggale ko ne la diw dee na nga ne non non déedéet non da ngeen a juum de diw démb man ak moom ñoo nekk ba 20 heures ñu ne non décédé na mu nekk lu yéeme nit day feebar léegi nga dem seeti ko jóge hôpital avant ngi accès kër ñëwal téléphone ne la malade bi décédé na nit day nekk ak waa këram léegi reer suur tëddi nelaw yeewu daal di faatu façon bu nekk tey dee mi ngi koy amee te ab anam boo xam ne bu gaaw la bu bette ba pare dee gi bëri ba jéggi dayoo boo demee almeer di suul yóbbu sa néew balaa ngay génn boo àggee almeere da nga fay fekk ñuy suul balaa ngay génn ay nit yuy suul fekk la fa soo génnee liir ay tàgge ci groupe whatsapp yeeg ak téléphone yi ñu lay woo lii dee kenn xamul nu mu toll bëri bëri waaye boo xam ne li yonent bi alayhi salaam waxoon ni ci fin ci signe yi nga xam ne day wone day annoncé fin du monde ci la bokk mooy dee gu bëri te gaaw bokk na ci mooy njaalo gu bëri kasratu zina léegi njaalo dañ koo daganal dañ koo daganal publicité njaalo publicité ay bërëb yu njaalo jigéen ñuy njaalo di exhiber seen bopp taxaw sol ay maillot de bain ñu xool ko gën a jub tànk gën a jekk tànk gën a nangam ila axirihi loolu mooy yombal njaalo ak encouragé ko te borom dafa waxoon ne bu leen ko jege yooyu signe la yoo xam ni yii jàll na yii ñu ngi daw am na signe yu ndaw yoo xam ne feeñagul ñëwagul signe yu ndaw yooyu bu ñëwee bu jeexee signe yu mag yi ñu ñëw te signe yu mag yi moom li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon mooy fukk yooyu bu xasee ba taxaw àdduna tukki na su ngeen jékki-jékkee gis flamme bi nga xam ne day tàkk ci suuf si tàkkee fële booru Irak ak Syrie tàkk ci suuf jëm ci asamaan fu waaye nekk ci monde bi di ko gis dabba bi yàlla di wax ci alquran génn tukallimu naasa di wax ak nit ñi naan la yow yéeféer nga yow naafeq nga yow julit nga yow safara nga jëm yow àjjana nga jëm yow ku bon nga yow ku baax nga daaw boobu su génnee mooy bés penc taxaw na su génnee mooy bés penc taxaw na masiixu dajjal yajuuja ak majuuja wàccug isa alayhi salaam yooyu mooy yi nga xam ne ñooy signe yu mag yi wane ne moom bés penc taxaw na foofu moom ku ñëwa ci naan da ngay tuub ak da ngay bëgg defarloog da ngay jéem a jaamu yàlla bàyyi yow demoo tuub en tant que ku bëgg a tuub mais da ngaa tiit da ngaa tiit tuub bi sérieuxul su boobaa da ngaa tiit su ko defee la ca mujj nag mooy jant bi jant bi fenk fa mu doon sowee mu tolloog loo xam ni bésu ajjuma la su boobaa adduna dem na kon yàlla moo xam ne ilmu saa wa yunazzilul xaysa yàlla mooy wàccee taw taw kan moo koy wàccee fii am na fi ku maamam mën a wàccee taw ah bu amoon ku mën a wàccee taw kon dëkk yëpp ay naat te boo moytuwul kooku léegi mu nekk milliardaire fii ku mënoon a wàccee taw yaay doon milliardaire bi ëpp milliard ci àdduna bi parce que ñëpp lay seet si dëkk yëpp lay seet si ne la suñ dëkk dañoo bëggoon nga wàccee fa taw nga ne leen affaire bi nag ni lii ngeen di fay ah kese kese bi pour mu wàccee taw kese bi temps la gars yi fay la kese bi nga wàccee taw. ba wàccee taw Sénégal ba Sénégal jeex waa Gambie woo la boo paree Gambie nga dem Mali soo paree Mali nga dem Tchad boo paree nga dem Cameroun boo paree nga dem Togo Benin ainsi de suite kon moom milliardaire ngay doon boo xam ni da ngay toog muy dox da ngay toog muy dox. gars yi dañu ñëw fay nga ne leen dem leen taw baa ngi wàcc seen dëkk taw bi wàcc muñ paree nga wàccee feneen mais fii way nazilul xaysa kenn ko mën muy yàlla yàlla rek mën a wàccee taw xam ngeen ne américains yi dafa waroon nañ fii loo xam ni dañ dem ba ci ba ci ba ci nuage yi am ay produits yu ñu fa installé loolu ñu ngi ko defoon Afrique de l'Est mais bàyyi nañ ko léegi parce que boobu sécheresse bu métti ak famine bu métti famine bu métti dafa amoon hmm, Tanzanie euh, ba Somalie am ay produits yoo xam dañ ko dañ ko def ci dañ ko def ci nuage affaire bi jékki-jékki commencé évaporer jékki-jékki xiin dara desul lu dul taw yàlla pousse nuage bi dem ba ci géej gi taw ba jeex ñëwaat yàlla won leen ne man maay taw taw man maa koy def yéen mën ngeen am xam-xam bu leen may ngeen am yu ngeen di yu ngeen di monter fabriquer ko def ko ci ni nuage yi pour mu mën a jékki-jékki meññ lu xiin wàccee ndox waaye di ngeen xam ndox mi fan lay wàcc yàlla pousse nuage ñu dem ba ci géej gi taw ba jeex tàkk ñëwaat toogaat seen place te géej gi soxlawul ndox mi lan lay wane mooy yàlla wa yunazilul xays yàlla mooy wàccee taw yemu fa wa yaalamu ma fil arxam yàlla moo xam li nekk ci biiru jigéen bi ëmb arrahim ah jigéen bi ëmb tey jigéen bi su fekkee ëmb na day dem def consultation ci sage femme wala ci benn échographe dem def consultation ci ab gynécologue bu defee échographie gynécologue bi xool ko ne ko da nga am grossesse un mois wala deux mois du fa la yem mais gynécologue bi est-ce que xam na ne xale bi grossesse bi dina àgg 9 mois xam na ko est-ce que xam na ne dina àgg 9 mois xam na xam na feebar yi war xale bi war a am avant muy judd war est-ce que xam na ko xamu ko des fois du teel a xamagum sax xale bi góor lay doon wala jigéen des fois sax première kii yi muy def buñ ko xoolee rajo yi njëkk a génn dañ naan ko xale bi góor la ñaa ba yàgg ne ko non dañoo jiimoon affaire bi jigéen la wane waat dama gis koo xam ne day gaa ñi dañuy tergiverser dañuy ñëw ne ko jigéen la dafa bàyyi noo noo ko li mu wane mooy góor la mu yaat ñu ne ko noo li mu wane sax mooy góor la ba mootul ku jigéen ki su dëgërul day xaw a dof léegoo léeg su ñëwee ñu defal ko consultation bi xool ko ne ko benn doom ngay am far mu ñëw nekk ay seex yàlla moo nëbb affaire ba gisul lépp des fois mu ñëw ñu ne ko yow ñu ngi la programmé le 20 septembre bii di ñëw mooy sa programmation ci nga war a am ci nga war a am doom le premier septembre mu am doom mbiru kan la yàlla wa yaalamu maa fil arham yàlla moo xam moo leem li nekk ci jigéen ji ëmb xale boobu mu ëmb li ci aju lépp yàllaa ko xam moo ko maîtriser xale bi day màgg du màgg est-ce que day judd wala du judd su juddoo lan lay doon lépp yàllaa ko maîtriser moo ko xam wa ma tadri amul lenn loo kenn ko lenn loo xam ne xam na nafsu benn bakkan boo xam ne xam na maza taksibu gada lan ngay fàddu suba lan ngay am suba lan moo lay dal suba nan ngay meli suba luy xew suba benn bakkan bu ko xam amul wa ma tadri nafsun amul benn bakkan boo xam ne xam na bi ay ardin tamuutu ci ban suuf ngay faatoo mbokk yi borom bi dana wa ma tadri nafsun maza taksibu gada amul benn bakkan boo xam ne xam na lu koy dal suba ak moom lan lay am suba ak lu muy fàgg suba xanaa loolu dàq dàq na ilmul xëy ba xam lu lay dal carrément amul kon ku koy woote woo rek da nga contredire alquran ku contredire alquran waxoo dëgg wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut fii kat moo xam fan lay fan lay faatoo ndax Sénégal ngay faatoo bu dee Sénégal fan la Dakar la wala Kaolack wala Diourbel wala Fatick wala Ziguinchor fan la si xamoo ko wala du nekk sax Sénégal nga xam ndax Màkka ngay faatoo wala Médine xamoo ci dara France la xamoo ci dara wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamu loolu yàlla moom xam na ko bu yàgg pare na ci mais waxamoo ko bi ngay faatu ndax sa kër la lay fekk hôpital lay doon ci voyage ngay nekk wala fan la maîtriser woo ko mbiru yàlla la te kenn mënu la ko wax inna allaha alimun xabir juróomi mbir yi yàlla moo ko jagoo juróomi mbir la fi tudd wa indahu ilmu saa mooy xam-xam bés penc wa yunazilul xeys yàlla mooy wàccee taw wa ya'lamu ma fil arham yàlla moo xam li ci biir li ci biiru ku jigéen ki ëmb wa ma tadri nafsun maada taksibu ghadan benn bakkan bu xam lu koy dal suba lu muy faag bu suba lu muy am ak lu mu dul am kenn xamoo ko dul yàlla wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut bakkan bu xam kañ fan lay faatoo ban suuf lay faatoo ci ban teer lay faatoo fan lay dee yàllaa ko xam juróom yi yàllaa ko maîtriser ñu mat a bàyyi xel juróom yooyu la tudd ci jeexantalu suratu Luqman wa nu'minu dañuy gëm bi anna allah naka yàlla yatakallamu dafay wax bi ma shaa lu ko neex mata shaa saa bu ko neexee kayfa shaa nu mu ko neexee yàlla day wax lu ko neex lay wax yow nit ki sañ ngaa wax lu la neex est-ce que sañ ngaa wax lu la neex yow nit ah suñoo wax lu la neex damal fii nga woo journaliste yi bañ ñëw journaliste yi nga woo leen bañ ñëw nga ne da ngay def conférence de presse ñu ñëw nga saaga président da nga saaga procureur wala gars yi ñëw nga ne damaa détourné un milliard nga wax ko ci ci ci ci média bi léegi damaa détourné un milliard rek yem fa toog jàpp sa njàmbur ba mu tul doo reeree sa kër tey gars yi dañ la woo laaj la ban un milliard la wala nga woo gars yi ba ñëw nga ne damaa rey nit moytuwul déclaration bi dina la coûter cher balaa ñuy xam rey nga wala reyoo mën na laa coûter cher mais yàlla moom lu ko neex wax lan moo tax mooy yàlla kenn moomu ko benn yàlla du rendre compte kenn du rendre compte kenn ba pare yàlla amul kenn ku am audace naan ko yàlla lu tax nga wax lii amul ko am audace bi laa yusalu amma yafal kenn du ko laaj lu tax pourquoi kenn du ko posé yàlla pourquoi jamais xanaa ku rep ku rep mais fii keneen ku dul yàlla loo wax buñ la ko laajul fii dinañ laaj yowmal qiyaam lu tax nga waxoon nangam lu tax nga def nangam moo tax yàlla yatakallamu bi ma sha lu ko neex mu wax mata sha nu mu ko neexee kayfa sha fu mu ko neexee ñu bari jàpp ne yàlla am na ñu ne yàlla gaa day wax mais yàlla waxam jeex na bi mu waxee alxuraan ba pare la waxam jeex yàlla du waxati ku la wax loolu yàlla ko wax fan la yàlla waxee ci alxuraan ne su bi ma waxee alxuraan ba pare laa pare waxatuma loolu yaa ko waxal yàlla wala yàlla ko waxal boppam yaa ko waxal yàlla yàlla waxalu ko boppam yàlla day wax saa bu ko soobee te mi ngi continuer di wax ak malaayika bi yéen li koy lii dalil bi mooy yonent bi alayhi salaam moo ne ci hadis abu hurayra bi nekk buxaari ak muslim yataaqabuuna fiikum malaayikatum bil leyli wa malaayikatum bin nahaar chaque jour dafay remplaçante ci yéen ay malaayika malaayika yoo xam ne dañuy dem yéeg dem rendre compte yàlla parce que ñoo fanaan ak yéen bu ñu demee wax yàlla li ngeen def fanaanoo def ci guddi gi te yàlla moo leen ko gën a xam mu ne am malaayika yu ñëw monte ci bëccëg bi malaayka yooyu ñëw monte bu ngoonee malaayka yooyu dem bu ñu demee rendre compte yàlla ci loo fi nekkee woon ñaari malaayka yi kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ kii di bind lu baax kii di bind lu bon suñu demee rendre compte yàlla yàlla ne leen naka ngeen bàyyee sama jaam bi ñu koy rendre compte te yàlla moo leen gën a xam ci situation bi ñu la bàyyi kon yàllaa ngi wax wala waxut ah mi ngi wax kon yàlla day wax saa bu ko soobee yàlla nee na wa kallama allahu muusa taklima yàlla wax na ak Moussa ca kàddoom ya loolu yàlla fan la wax ak Moussa ci moo Sinaay wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniin moo Sinaay bi nga xam ne tey mi ngi ci Liban ah te Liban ak Syrie ci frontière bi montagne bi mi ngi am ba léegi mi ngi fa di am foofu la yàlla waxee ak Moussa muy alwaad al muqaddas sitwa mu nekk xur boo xam ne bu yaatu la ci biir xur bi ci la moo Sinaay bi nekk mu nekk xur boo xam ne suñu borom dañuy xur bu sell la Moussa ñëw mu ne ko summil say dàll nga dugg Moussa dugg di dégg borom bi di wax ak moom ci biir montagne bi dafa amoon benn garab garab boobu mooy wa tiini wa zaytuun mooy garabu olive garabu olive bi nekk ci biir montagne bi borom bi di wax ak Moussa léegi ñenn ñi nga xam ne dañoo xamadi te yépp yonent yàlla Moussa Moussa ni ngeen ko xamee dafa am nit ñoo xam ne Moussa lañ gën a yépp ci yonent yi moom lañ tuddee ximaarul anbiya Moussa mooy mbaamu yonent yi yonent yëpp Moussa moo ci gën a ñàkk dégg daaj Moussa bi mu duggee ci montagne bi zeytun boobu garabu olive bi bi ko bi muy dégg baatu yàlla mu naan ko faxlaa naa lay ko summil sa dàll yi naan ko inni ana rabbuk man maay sa boroom Moussa dafa jàppoon ni baat bi feneen lay jóge alors que Moussa yëgul ne garab gi wax ak moom garab gi mooy yàlla Moussa yëgul ni garab gi ci boppam mooy yàlla léegi loolu ñi koy wax mooy ñi saxal li nga xam ne mooy waxdatul wujud mooy lépp yàlla la léegi yàlla moo feeñ ci garab gi moo feeñ ci garab gi garab gi nekk yàlla garab googu ñoom bokk nañ ci aay ba bokk nañ ci li ñuy sukkandikoo ci wane ni lépp yàlla la garab day nekk yàlla xeer day nekk yàlla yow yàlla nga sa baay yàlla la sa doom yàlla la xaj bi dox yàlla la muus mi ginaar gi lépp yàlla la léegi bu nekk lépp lépp nekkee yàlla yow ngay julli yow ngay julli di jullil yàlla di woor di wooral yàlla léegi yàlla buy jullil yàlla yàlla buy wooral yàlla bu fekkee lépp yàlla la kan mooy jaam bi kon abdu amatul baatu abdu amatul jaam amatul lépp yàlla la kon terme abdu léegi lan mooy njëriñam ci texte alquran ak texte sunna yi léegi wax ñu lan mooy sens kon baatu abdu léegi baatu abdu lan lay tekki bu fekkee lépp yàlla la loolu wax ju yàqu la kon wa kallama allahu Moussa taklima yàlla wax na ak Moussa ah ci kàddoom ya yàlla mu ne wala ma jaa Moussa li miqaatina bi Moussa ñëwee ci suñu rendez-vous ba wa kallamahu rabbuhu yàlla wax ak moom wa naadaynaahu ci beneen ay wa naadaynaahu yàlla ne wa naadaynaahu ñu woo ko min jaanibi tuuril ayman ci droitu montagne bi wa qarrabnaahu najiya ñu jegeel ko suñu bopp ba mu jege ñu ba nga xam ne jege na ñu daal di wax ak moom muy dégg li ñuy wax carrément sans intermédiaire loolu li muy saxal mooy yàlla day wax gis nga yàlla pour dàq ñi nga gis nga ñi bëgg a dàq ne yàlla day wax muy achaira yi wallahi dañuy sonn parce que baatu wax suñu borom daf ko daf ko dafa utiliser ay termes ay ay expression ci alquran yoo xam ne yépp wax lay wone ci Moussa mi yàlla wax ne ne is naadaahu rabbuhu naadaa nidaa lan mooy nidaa mooy appel léegi woo nit ki soo koy woo woo woo woo booy woo nit looy utiliser kii su ma ko defee nii lii woo la kobos woo la ah fëgg woo la woo moom woo nidaa lan moo koy def lan mooy woo ah làmmiñ yaa Moussa loolu koy làmmiñ la léegi loo ci déggee su dee nit làmmiñ mais su dee yàlla duñ ko saxal làmmiñ mais dañ naan kàddoom la kàddug yàlla la kàddug kàddug yàlla la parce que woo kàddu rek la mën a nekk eediw nga ne noo woo wala de dafa fëgg eediw mën naa nekk fëgg loolu kàddu la wax la kalaam la wa nu'minu dañuy gëm bi annahu moom yàlla law kaana al bahru midaadan su fekkoon ne géej gi dafa nekk encre encre ah ñi jaar daara yéen ay booy Dakar ngeen ñu ci ëpp mais ñi jaar daara xam nañ lan mooy daxa damay bañ a wax baatu daxa ngeen réer moo tax ma ne encre daxa mooy bu ñu bind alquran ci alluwe bu njëkk dañ développement dafa am mais bu njëkk jigéen ñi bu ñu doon togg matt la ñuy toggee matt boobu ñuy toggee boo demee village yi ba léegi moo am cin bi cin bi dafa am benn genre ñuul ñuul bu bu koy téye boo xam ne day ñuul ñuul boobu day mel ni genre dóom mais day ñuul kuk loolu taalibe yi bu ñu ñëwee dañuy jël benn bant wala benn verre wala benn këwsu xoos ko am fu ñu ko dékk foofu ñu koy dékk dañ ciy def ci benn récipient lañ koy def après def ci ndox su ci defee ndox dem dëbb daakaande dëbb daakaande daal di ko ciy def pour mu xaw a dëgër tuuti léegi mu nekk daxa nga wut li nga xam ne mooy bant xalima daal di koy yet di ci càpp di bind alxuraan ci alluwa bi loolu la ñuy tuddee midaat mooy encre mu ne law kaana albaxru midaadan su fekkoon ne géej yi géej yëpp de albaxru fii lu ñu ci jublu mooy jinsul baxr fii kalimatu baxr jins la lu ñu ci jublu mooy jëmmi géej ci boppam yépp nag géej bi nekk Sénégal muy océan Atlantique océan Pacifique ak ah océan yi nga xam yépp yépp yépp mooy nga jël leen midaadam ñu nekk encre ah li kalimaati rabbi ñu nekk encre ci kàddu borom bi ñu ko ciy bind la nafida al bahru géej googu nekk encre ñu ciy bind kàddu borom gi la nafida day jeex tàkk qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jinaa bi mislihi madada géej gi day dem ba jeex encre bi day jeex tàkk te kàddu yàlla yi du jeex lan moo tax mooy waxu yàlla amul fu mu tàmbalee te du jeex yow sa wax am na fu mu tàmbalee wala amul avant ngay judd yaa ngi doon wax avant ngay judd yaa ngi doon wax déedéet soo deyee da ngay wax wala boo deyee da ngay continuer di wax sa biir bàmmeel ah wax ji daa am fu muy yem wax ji daa am fu muy yem bu ñu la laajee nga wax bu ñu la laajul nga noppi laaj yi mooy nakir ak munkar su ñëwee laaj ma rabbuka ma diinuka ma nabiyuka soo tontoo lu baax nga tudd jàpp sa njàmbur di bànneexu boo tontoo safaan bi nga nekk fa di ñam mbugal ba keroog yàlla di dekkal jaam yi mu ni walaw anna ma fi l ardi min shajara mbooleem li nekk ci suuf ci ay garab aay boobu day gën a dëgëral aay bi aqlaamun nekk ay ay plume ay big ah wal bahru yamudduhu min baadihi ñuy tànq ci géej gi tànq ci géej gi di ko def ci plume yi ñu koy bindee di bind big bu jeex rek ñu tànqaat ci géej gi doxaat ko encre yamudduhu min baadihi sab'atu abhur ñu géej gi ni mu toll ñu defaat ci sept géej multiplier ko sept di di di ko joxaat li nga xam ne mooy plume yi ñu koy bindee maa nafidat kalimatullah wallahi dinañ bind ba setti géej yi jeex te kàddu yàlla yi du jeex te te kàddu yàlla yi du jeex mbokk yi loolu lan nga ciy jànge lan nga ciy jànge mooy waxu yàlla kenn mënu ko quantifier kenn mënu ko wutal limite kenn mënu ko wutal dayo moom borom bi subhanahu wa taala loolu lépp li muy gën a dëgëral nag mooy yàlla day wax li muy gën a dëgëral mooy sunu borom subhanahu wa taala dafay wax wala déet kon waxu yàlla moom sax na te sax gi lu sax dàkk la te waxu yàlla du jeex du lu muy limité te kenn mënul xam waxu yàlla du mu toll inna allaha azizun hakim yàlla ku tedd la hakim ku xarañ la ku xam li muy def la ak nu mu koy defee wa nu'minu dañuy gëm bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan waxu yàlla yi ñoo gën a mat ci kàddu yépp te gën cee dëggu sidqan ñoo gën a dëggu fil axbaar ci ay nettali yàlla lépp lu mu nettali dëgg la keneen nag lu mu nettali lépp dëgg la doy dëgg wa adlan yàlla lépp lu mu wax ci ay kàddoom dafa maandu dafa am équité dafa am justice fil ahkam ay atteem yàlla lépp lu mu atte dafa maandu li mu wax ne ku naan sàngara dañ ko def lii ku njaaloo dañ ko def lii ku rey nit te moo ko tey dañ ko def lii ah ku sàcc dañ ko def lii ku agressé lii lañ koy def ku siif lii lañ koy def mboolem atte yàlla indi atte yépp dafa nekk loo xam ne yu maandu la wa xasanan atte yu rafet la te kàddoo bi dafa rafet fil xadis ci wàllu wax waxu yàlla dafa rafet te neex wallahi dala melul ni alquran wala yéen gis ngeen lu gën a neex alquran alquran gis ngeen lu ko gën a neex amul qaala allahu taala borom bu kawe bi wax na wa tammat kalima wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla mu ne mat na kàddu yàlla yi nekk kàddu yoo xam ne sidqan dañoo mat ci dëggu wa adlan dañoo mat ci maandu borom bi waxaat wa qaal wa man asdaqu ndax gis nga ku gën a dëggu ndax gis nga ku gën a dëggu minallaahi ci yàlla hadisan ay kàddu ay wax amul wa nu'min dañuy gëm bi anna alqurana alkarima kalaamullah alquran bii bu tedd bii kalaamullahi taala waxu yàlla la te kalama bi yàlla moo ko wax xaqan yàllaa ko wax dëggantaan wa alqaahu ila jibril yàlla moo ko jox jibril fa nazala bihi jibril ala qalbi nabi muhammadin sala sallam jibril wàccee ko ci xolu yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam kon alquran noonu la wàccee yàlla moo ne qul waxal nazalahu ruhul quds alquran bi jibril moo ko wàccee ruhul quds kooku ci turu jibril la bokk min rabbika mu bàyyee ko ci sa borom bil xaq nekk loo xam ne dëgg la moom alquran wa innahu moom alquran la tanzilu rabbil alamin dafa nekk loo xam ne lu wàcc la bàyyeekoo ci borom bindaafoon yi nazala bihi ruuxul amin jibril mu wóor mii moom moo ko wàccee ala qalbika ci sa xol li takuna min al munzarin pour nga nekk yow ki nga yow ci sa bopp koo xam ni da ngay bokk ci ñi nga xam ni da nga ciy waaru di ci waaraate min al munzarin bi lisaanin arabiyin mubin mu nekk ci loo xam ne ci làkku arab bu biir la bu leer naññ du chinois du japonais du anglais du olof du tukulóor du du saraxule waaye ci làkku arab bu biir la yàlla moo tànn wàcce ko ci làkk boobu lan moo tax mooy làkku arab moo mën a contenir waxu yàlla moo ko mën a contenir yeneen làkk yi règle yi ci nekk ak yeneen yi attanu ko pour mën cee wàcc loolu li muy li muy tekki mooy làkku arab moo gën a complet ci làkk yi yàlla choisirul alquran pour wàccee ci waxam du hasard te loolu boo jàngee langue yi tuuti nga am base ci langue arabe am ko ci français am ko ci anglais wala yeneen yi espagnol ak yeneen yi mën a def benn comparaison ci ngay xam ne arabe du seen morom arabe du moroomu langue yi waxuñu ko parce que la mais réalité la te dinañ gën a dem monde bi lu mu gën a avancé loolu dina gën a leer richesse bi nekk ci langue arabe nekkul ci yeneen langue yi arabe nga mën a jël benn mot benn mot ci arabe mu am 300 synonymes 300 synonymes benn mot rek loolu am na ci yeneen làkk yi yeneen làkk yi boo amee 5 synonymes bala ngaa lijjanti sixième bi wala septième bi di nga wax lu set ah waaye arabe dafa riche ba pare sens figuré ci arabe ci la gën a bëree ka ci yeneen làkk yi sens figuré benn moom mën nga koo jël di ci wax loo bëgg tëggee ko noo bëgg donte am na ci yeneen làkk yi mais facilitation bi ci am ci làkk arabe amu am melul noonu ci yeneen langue yi melul noonu ci yeneen langue yi lu ma ta bàyyi xel la wa numinu yaakaar naa loolu la ñuy jeexale wa numinu dañuy gëm bi anna allaha azza wa jalla naka yàlla mu tedd te màgg mi aliyun dafa kawe ala xalqihi ci mbindaa fóonam yi bi zaatihi ci jëmmam jëmmi yàlla mi ngi ci kaw wa sifaatihi melokaanam yi dañoo kawe encore li qawlihi taala ngir waxu yàlla wa huwa al ali ci ayatul kursi yàlla wax na ko wa huwa al ali yàlla mooy ci kawe léegi baatu kawe ci olof kawe lu muy tekki kawe mooy tekki nekk ci kaw wala wala mooy tekki nekk ci suuf kawe mooy tekki nekk ci suuf wala kawe mooy tekki nekk fépp kawe lu muy tekki ne ci kaw kawe baatu kawe baatu kawe lan nga ci mën a jëlee ban radical kaw kaw kawe ci kaw la jóge n'est-ce pas kaw ci kawe la jóge kon boo nee kawe baatu kaw ci lañ ko jëlee kon yàlla ngi ci kaw léegi am ay nit ñoo xam ni boo ne yàlla mi ngi ci kaw ci ñoom crime la crime yow dafa mel ni da ngaa rey nit ñoom seen pas-pas foofu la toll mooy yàlla nekkul ci kaw mi ngi fépp dañ ne boo ne yàlla mi ngi ci kaw yow da ngaa yëpp yàlla dafa mel ni da ngay limité yàlla ci espace ak ci temps te yàlla du ku ñuy limité ci espace ak ci temps léegi kan moo limité yàlla ci espace ak ci temps yàlla mi ngi ci kaw kooku limitation la est-ce que dañ ne yàlla mi ngi ci kaw fii la tàmbalee ba fii côté bii ba côté bii la nekk nekkul côté bële ak côté bële dañ ko dañ ko limité dañ ne rek yàlla mi ngi ci kaw mais biñu ne mi ngi ci kaw newuñ ne côté Sénégal la nekk bàyyi côté Gambie ne bàyyi côté Amérique dañ ne rek yàlla ngi ci kaw naka la nekkee ci kaw xamuñu ko mais yàlla ngi ci kaw kon bi zaatihi wa sifaatihi wa qawlu ak waxu yàlla wa huwa alqaahiru wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi ah wa huwa alxakimu alxabir mu ne moom yàlla alqaahir mooy ki nga xam ne dafa peeg peegu kàttan ak doole dafa noot dafa am ak noteel fawqa ibaadihi ci kaw jaamam yi wal xakimul xabiir yàlla mooy ki xereñ alxabiir mooy ki bëri kumpa mbokk yi kilifa boo fekkee kilifa toog fii ñun ci doomu aadama yi nit ñi rek laa wax de fii sëriñ boo fekk mu toog wala kilifa mu toog fan lay toog ci suuf ci suuf lay toog fan lay toog ci kaw ñeneen toog ci suuf ah léegi nit rek nit rek moom daa bëgg a ne ci kaw nit ci kaw la bëgg a nekk moom toog nit rek ci kaw la bëgg a nekk boo fekkee kilifa gi toog moom ci kaw lay toog gaa yi toog ci suuf boo ñëw xam ne kii mooy kilifa gi ku ñëw toog ci suuf moom mu toog ci kaw yow nit moom nit ku baax wala nit ku nit ku ñu fonk moom nangu nañ mu nekk ci kaw dina ci suuf ñun ñu ne yàlla mi ñu fonk yàlla nekkul ci kaw te li ci reetaan ñi nga naan yàlla ñi naan la yàlla nekkul ci kaw boo leen ne léegi yàlla fan la nekk ñu ne non yàlla newul ci kaw léegi yàlla fan la nekk ñu ne mi ngi fépp léegi yàlla bu nekkee fépp du mi ngi fii mi ngi droite wala nekkul droite kon yàlla ngi droite yàlla ngi gauche kon yàlla ngi ci suuf léegi ki lay wax ne yàlla nekkul ci kaw buy ñaan pourtant nii lay def wala déet léegi yow yaa ne yàlla nekkul ci kaw kon normalement droite la nekk booy ñaan doo def nii wala bu dee gauche booy ñaan nga def nii wala bu dee suuf nga def nii mais yow nii ngay def ba pare ne yàlla newul ci kaw. des fois booy wax yàlla xam na nii ngay def yàlla fooy joxoñ yàlla xam na li may wax léegi lu tax defoo nii wala nga def droite mais yàlla xam na yow déjà sa sa conscience sax nanguwul ne yàlla yàllaa ngi fépp day saxal ne yàllaa ngi ci kaw te wallaahi képp koo xam ne sa fitra yàquwul sa fitra sa nite yàquwul sa nite yàquwul buñ la waxee ana yàlla danga naan mi ngi ci kaw xale bu ndaw dong boo ko woon bu am 7 ans 8 ans commencé xam ràññee te kenn yàqu ko yàquguñ bopp bi boo ne ko ana yàlla mu ne la mi ngi ci kaw. kon pas-pas bu yàqu mooy tax nit ki ñu dem ba dindi loolu fitra bi ne woon ci moom ñu dindi ko gëmloo ko ni yàllaa ngi fépp te gaa ñi dafa am dafa am dafa am philosophie yoo xam ne moom lañ dugal ci lislaam moo yàq lu bëree bëri wallahi dafa yàq lu bëri ñoom dañ naan la boo leen waxee ne yéen bu ngeen waxee ne yàllaa ngi fépp kon yàlla ba nga bëgg a wax ne yàlla mi ngi ci marché yi yàlla mi ngi ci douche yi yàlla mi ngi ci dancing yi yàlla mi ngi ci fépp mi ngi ci marché yeeg fépp yoon yeeg selebe yoon yi fépp yàllaa ngi fa ñu ne non yéen wahabi yuun yi yéen yéen taymi yuun yi yéen salafi yuun yi yéen nangam yi seen xel dafa gàtt quoi yéen seen xam-xam bëriwul d' accord yéen lii seen xam-xam bëri expliqué leen expliqué leen ñu léegi ñu ne non dafa mel ni nga ñëw dugg ci ay toilette toilette nga dugg ci cabinet bi nga jël lampe torche boo jëlee lampe torche bi lumière bi nga niit ko n' est ce pas lumière bi day tàmpe ci biir la day tàmpe ci biir cabinet bi lumière bi day tàmpe foofu n' est ce pas est ce que lumière bi tax na lumière bi tax na lumière bi mi ngi fa di leer mais taxul ñu ne non yàlla noonu la mel léegi d' accord yéen misaal bi ngeen joxe ci lumière la est ce que yàlla lumière la yéen ñu neen wax yàlla ngeen ñuy wax ay lumière yéen misaal exemple bi ngeen joxe nii lumière la ñun yàlla la ñu wax yàlla est ce que lumière la yàlla du lumière donte mooy leeral allahu nuuru samawati wal ard yàlla mooy leeral mais yàlla du lumière jëmm la ju am ay ay melokaana ki tur nam mel nag moo ko xam xamuñu ko yow li exemple bi ngay joxe ni exemple lumière la te yow li ngay joxe da nga ko maîtriser mooy lumière yow da nga am maîtrise yàlla ba xam yàlla ni lumière bi la mel mais yàlla da nga koy comparé ak loo loo xam ni comparable ak moom mais lumière da nga koy comparé ak yàlla lumière bi da nga ko faa niit yow yaa ko niit foofa lumière bi dem lumière bi nekk loo xam ne dafaa tàmpe mais jëmmi lumière bi fi mu jógee ci torche bi la torche bi léegi torche bi mooy li palpable mais du lumière bi kon lumière bi jëmm la wala du jëmm lumière bi du jëmm effet la effet la lumière bi effet la yàlla effet la est-ce que yàlla effet la yàlla du effet débat bu bugg ñu ci dugg parce que lu philosophie la loo xam ne ñoom fa la ñuy dugal nit ñi di leen réeral moo tax aqida ku koy jàng dafa laaj li ñuy tuddee ilmul kalaam parce que gars yi dafa am terme yu ñu utilisé yoo xam ne boo jàngee pas-pas bi aqida bi kese kese seen terme yi jàngoo ko li ñuy tuddee lu laal yenn base ci wàllu philosophie jàngoo ko dañ lay réeral lay réer ba nga réer parce que fi ñu lay dugal doo fa génn ñoom dañuy wax nga jàpp ne ba jàpp ne dañuy wax dara alors que li ñuy wax sax tegewul fondewul mais pour ñoom dara la pour ñoom dara kon suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ci kaw tegtal bi gën a wane ne yàllaa ngi ci kaw yonent bi fan la jëlee julli ci biir suuf yonent yàlla Muhammad julli fan la ko yàlla joxe ci kaw kan moo ko jox julli foofu yonent bi ku ko jox julli xanaa du yàlla yonent bi ñëwul ba ci sixième asamaan kan la fa fekk Moussa lan la ko Moussa wax juróom fukki julli dafa diis dellul léegi nga ne yàlla newul ci kaw kan nga yëpp dellul dellul Moussa ne ko delluwaatal ci sa borom yonent bi ñëw ba sixième asamaan mu jege sixième asamaan romb septième asamaan dem ba sidratul muntaha demaat ci kaw di wax di wax yàlla ne ko juróom fukki yi wàññi naa ko def naa ko juróom juróom la juróom la yu am valeur juróom fukk parce que benn bu baax fukk laa koy fay n'est-ce pas benn bu baax fukk laa koy fay su ko defee kon xamsun fii xamsin juróom la waaye valeur juróom fukk la am mu ñëwaat Moussa ne ko même juróomi sax ragal naa day diis doo delluwaat ci sa borom mu ne ko am naa kersa daal di wàcc di ñëw di ñëw ba agsiwaat léegi nga ne yàlla yàlla newul ci kaw. texte yi leer ba ba gën a leer leer mais yow sa xel feebar sukkandiku ci ay waxu philosophe bëgg a puus waxu yàlla bëgg a puus aussi li nga xam ne mooy effet réel yi. léegi beneen bi jibril bu doon ñëw fan lay jógee ci biir suuf si jibril da doon xotti biir suuf si mel ni fusée rek ñëw jibril fu mu doon jógee. jibril fan la daan jóge du ci kaw fu mu jóge bi ci yàlla la jóge moo ko yabal ne yàlla nekkul ci kaw il faut sa xel feebar wala vraiment nga am xol bu lëndëm pour mën a dàq li ñuy tuddee uluwullah léegi ngeen bàyyi xel ñaar ne yàlla mi ngi ci kaw kooku isbaatu sifatul uluw la saxal nekk yàlla yàlla mi ngi ci kaw saxal melokaanu kawe gi la mais tekkiwul ne da ngay limité yàlla ci temps wala ci espace parce que looy limité da ngay xam nu mu toll looy limité da ngay xam naka la toll fan la tàmbalee fan la jeexee fan la tàmbalee ak fan la jeexee et puis ñi naan la da ngay limité yàlla ñoom dañoo jël dañoo jël yàlla mesuré ko ci nit dañoo jël yàlla mesuré ko ci nit soo ma nee ana ana ana diw ma ne la diw mi ngi ci biir classe bi moom dañ limité wu na n'est-ce pas parce que nit la mën nañ ko limité moom mënta nekk ci biir classe bi ba pare nekk ci mbedd mi nekk ci buntu buntu Pikine nekk fële nekk fële parce que moom nit la moom nit ki fu mu nekk fenn foofu la mën a nekk parce que xam nañ nit ki nu mu toll xam nañ ay déplacement am ak moom melokaanu nu mu mel mënul nekk fenn nekk feneen mais yàlla da ngaa xam nu mu mel ba nga am ci moom idée xamoo ko loolu moo tax li ngay saxal mooy isbaat sifatul ulu mais laysa tahdidan lil makaani wala lil zaman tekkiwul ne da ngay limité yàlla ci temps wala ci espace yàlla kenn di ko limité ci temps kenn di ko limité ci espace parce que looy limité da nga koy maîtriser mais nag borom bi mi ngi ci kaw naka la fa nekkee moo ko xam bu ci jéem a dugg tamit réer incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee daañu yaaxal xalaqa samawaati wal arda fi sittati ayaamin summa stawa ala al arsh juróom benn fan la bind asamaan ak suuf daal di dem kawe ci kaw arsam ars fan la nekk ci biir suuf ars mi ngi ci kaw yonent bi alayhi salaam nee na ars mi ngi ca jeexintalu juróom-ñaareelu asamaan foofa géej moo fa nekk arsh tege ci kaw géej arsh ci ndox la nekk loolu texte rek moo lay wax nga gëm ci bu ci dugal xel wax naa la ko mbiru yàlla kenn du ci dugal xel xam nga gars yi sooy wax am na ñoo xam ni li ma leen di wax yéen toujours yu intellectuels yi loo wax ñu jël thèse synthèse antithèse te trop de thèse synthèse antithèse donne la foutaise parce que am na yoo xam ne kenn du ci dugal ay analyse di jéem a dugal xel da lay yóbbu feneen ci ay bêtises la lay yóbbu texte bi ni mu ko waxee gëmee ko noonu nga yem fa jéem a bañ naan da ngay jéem a xalaat su ñu jàng français loo wax ñu jéem a naan dañuy jéem a analyse jéem a xalaat am na loo xam ne bu ci xalaat parce que xel mi àttu na ko bu ci dugal xel texte rek nga gëm ko te yem fa point final boo fi jéem a nekk naan li Oustaz doon wax xaaral ma bul ci dugg bul ci dugg hada wallahu alam sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
xam naa dañuy yem foofu bu dee question yi dañ ko denc après incha allah ci yeneen darsi yi ñëw ñu jëm ko posé incha allah am na ku la jox bii nag fu mu ne dana mën ñu jox ko oustaz question la ko